rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi yeesal suñu taalibe ak suñu jëbbal ak suñu yaakaar ko te ko ak njabootu sëriñ Tuubaa yëpp di ñaanal suñu bunt sëriñ Tuubaa suñu Cheikh Ahmadou Bamba ak mboolem jamono suñu soxna suñu tubaab ak suñu borom jàngale ngi jël suñu kàddu ci turu sëñ Abo Mbacke moom sëñ Cheikh Say mi nga moo ñu ñu ngi ñu war a wax ci kàddu waa Mbadiar di jël nuyoo bi ak siyaar bi di ko teg ci suñu kilifa yi nga xam ne ñoo suñu tubaab di sëñ suñu wàjjo ak ak mboolem ñu njabootu Sëriñ Tuubaa bi ñëpp di suñu wax ñëpp di jégalu kàddu yi nga xam ne ñoom nga yëg seen ah di di sant ci euh, jël kàddu gi di sant ni ak préfet ak sous-préfet ak autorité yi yi nga xam ne ñu président de la di def ni projet bi bu baax a baax a baax bi nga xam ne moom lañ président de la République indi jeeleel suñu gox bii mu diggante Madiyana ak Saaw da xam di ci dëgg lool macha allah da xam ne lii am yàgg na waaye nag kon bi amee nii ñu ci sant di ñaan suñu borom yeggale mébét yëpp barke Sëriñ Tuubaa ndax projet bu ñu def ci Tuubaa rek yoonu mu yëpp ñu ko defal ndax bu ñu mooy ba soñoon Tuubaa mel ne Makka ak Madina ci taar te kon boobu bu président ji ne projet bi topp bi ngir bëgg soqali diggante Madiane ak Sam ak jafe-jafe yi amoon ndax nawet bu mosaan jot kenn mosa jaar fii kenn mënut a jaar fii mbett dafay taar te jafe-jafe yi mbett rek lañ daan nekk kon boobu bu am projet mii bu mel ñoo ko ciy sant di ko gërëm di turu waa Madiane gépp Madiane un ba ba deux di leen sant tamit ci turu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Souhaïbou bi di nga xam ne moo ñu fi yebal ngir ñu teewal ko fi teewal ko sëriñ Abo ñu ànd ak suñu kilifa sëriñ Abdoulaye Hak ak sëriñ Moustapha ak soxna Mame Tay ñi nga xam ne responsable politique la nekk ci APR di si jàmbaar loolu moom itam eh, ñu eh, eh, ñu ñëw fi teewal ko sëriñ Cheikh teewal ko sëriñ Abo di ko defal bu baax a baax di ñaanal président de la République lii mu def nii rafet na lool waaye su ko mën a yaatale ci Madiyana gépp dana baax ndax saa bu nawet jotee dañu am jafe-jafe-jafe pour pour pour pour pour jaar ci mbedd yi. bari na fi mbedd yi bëree bëri wax yittewoon ko mbedd 30 yëpp buñ soo ñu def foofu li ñu seetlu si dëkk bëri na lool waaye fu ñu gis suñu bopp day jafe fu ñu gis suñu bopp day jafe lool ah néew na lu ñu seetlu si kër si dëkk bi ak ñu ko mën a yor ñëpp ñu gis suñu bopp waa Madiyana néew na ñu koy gis bëgg na mu taxaw mu mu yokk taxawaay bi bii jëm saam baax na waaye am na yeneen mbedd yu nekk ci ruq ay doomu aadama bu dëkk dañuy fay impôt comme Sénégal yëpp dañuy fay ay taxes comme comme Sénégal yëpp li ko na koy def comme ñëpp poste santé bi yàgg nañu ko wax nañ ci jàpp jox ko centre santé bi waa gox bi ndax Madiyana dafa am ginnaaw dafa bokk fii ko saam ak jant ak kàtt yu mu taxaw si defar ko na am ñetti poste santé ak centre santé bu mag a mag ñoo ngi ko ñaan mu def am na ci mbedd yoo xam ci ba léegi am du ay tëri ñoo ngi ko ñaan mu yaatal tëri yëpp defal ko def ay lampe ak courant bi lépp doy waaw ñoo ngi ko ñaan loolu baax a baax mu yaatal ko lii ab tàmbali nag waaye na ko gën yaatal kaddu yi nag lu ci dëng ñoo xam ne suñu motodal waaye lu ci xam ne dañu ko ñëw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh